ah j'aime ça waay vive la technologie ah cum waa Sénégal mbaa yéen ngi ci jàmm lii benn vidéo la en vrac si wàllum photographie en général ah. parce que léeg-léeg dañ may laaj ay laaj yoo xam ne vraiment quoi sama gars quoi xam nga parce que li nga war a comprendre mooy que photographie du bës bouton rek quoi xam euh, même bu fe bu la neexee sax nekk bëskatu bouton amul benn problème mais bu fekkee ne danga bëgg nekk photographe même sax bëskatu bouton rek ah dafa am ay principe élémentaire de base yoo xam ne danga ko war a comprendre parce que photographie processus la fi ngay tàmbalee mooy da nga war a xam sa appareil photo moo xam téléphone nga yor moo xam euh, DSLR nga yor moo xam boo mënti yor da war Euh, mi xam sa appareil xam menu bi xam ban bouton mooy rek mooy def lan euh, loolu yomb na ci fi yomb commencé bu fekkee ni da nga jënd sa appareil euh, ci boîte mu ànd ak lépp par force am na catalogue bi ci biir maanaam livre bi ànd ak dessin yi ba boo déggul anglais déggoo wolof déggoo français de am na ay dessin ak ay numéro bu ci nekk ñu wan la affaire yi nan ak naka bu fekkee ne jëndoo ko bees mu ànd ak manuel bi demal ci sit internetu ki defar appareil bi modèle bi moo xam Canon la moo xam Sony la moo xam Lumix la et cetera. am na ci biir site bi sa modelu appareil am na catalogue bi en mode PDF wala en mode HTML nga xam ne mun nga ko lire online ci internet bi wala nga télécharger ko en mode PDF lire affaire yi benn bennal ko pour comprendre bu dëgëree ba dëgër mais nga dem YouTube. YouTube lu mu bon bon am na koo xam ne mi ngi expliquer sa modèle appareil bi précisément nan ak naka boo déggul làkk bi muy làkk mais seetaanal image yi après nga dem essayer parce que sa appareil sa appareil la yow yaa ko war a expliquer nit ñi nii ak nii lay fonctionner et non le contraire parce que tey euh, man boo ñëwee ne ma ma expliquer la yow sa appareil euh, nu muy fonctionner mais man dama koy jàng ba pare jéem ko xool parce que amaana. tey nii nii nii c'est la première fois may gis appareil bi may sox soog a xam ne ça existe donc dama koy gëstu xool ko comprendre ko après soog la ko mën a expliquer éventuellement donc yëfu tayal yooyu noonu nga bañ a def def ko parce que loolu mooy li nga war a commencer xam sa appareil. amateur bi pro bi ñoom ñëpp même appareil nanu yor mais bu ñu dooree résultat final. mais da ngay gis différence bi et loolu am du du benn secret amul benn kicin kacang c'est juste xam sa appareil miin sa appareil parce que tey boo waree régler lii wala def bi wala bële réglage faw nga xam fan ngay bësi ak euh, lu tax nga koy bës parce que de toute façon bi ñu inventé appareil photo ba léegi ça fonctionne de la même manière euh lii mooy objectif mooy lens lens ah lumière bi dafay jaar ci lens bi jaaree fii génnee fii lii léegi lii lii njëriñam mooy que dafay concentrer lumière bi bu concentrer lumière bi day dem dal ci biir capteur bi léegi capteur bi ci biir ah, fa la affaire bi di amee à l'époque capteur bi pellicule la woon et maa ngi doon expliquer ci bële passé ne que ne pellicule ay boulu bromure d'argent moo ci nekk dafay réagir par rapport ak lumière bi loolu réaction chimique naturelle la euh, oui réaction chimique naturelle bon réaction naturelle bon éventuellement mais euh, loolu moo indi turu photographie argentique parce que dafa am ay euh, affaire de bromure d'argent la bul yooyu noonu jamono dafa dox technologie dox ba bul yooyu ñu remplacer ko ay ay ay photosite photosite yooyu noonu genre bâtonnet la yoo xam ne dafay capter les couleurs euh, les couleurs RGB red green blue. Euh, donc rouge, bleu, euh, green, euh, vert. Rouge, vert, bleu. Photosite yooyu noonu lan lay def dafay enregistrer ban quantité lumière moo dal ci euh, bâtonnet boobu noonu ak ñaata temps la ci dal après daf koy def sous forme de fichier raw li ñuy woowee fichier raw maanaam dafay enregistrer ay données ay informations loolu moo tax tey ñu wax photo numérique. nanu dellu si tuuti euh, ñu fàttaliku ne appareil photo balaa dara di dara dafa nekk loo xam ne dafay jéem a toppandoo bët et boo fotowee photo bi ba pare bët nga koy won parce que bët dafa am nu muy gisee bët boo ko tegalee image du dafay ñëw rek gis image bi nii nii nii dafa am nu muy koy gisee maanaam dafa am fu muy njëkk teg ay point focal am fu muy njëkk focaliser wu xool loolu après soog a gis ay point point point point point si biir photo bi après léegi mu dajalee photo bi yëpp ci biir xel bi parce que mujj gi yow boo gis bu say bët gisee image bi ba pare dootul gis ak bët mais ak xel la koy gisee maanaam que léegi dafay soog dafay tàmbalee détaillé image bi benn par benn bi gëstukat gëstoo ba gëstu ba gëstuwaat gis ne eh daanaka à partir de loolu mën nañ ci teg ay règles comme par exemple bi ci gën a siiw mooy règle des quatre tiers règle des quatre mooy lan dañuy diviser écran bi en trois parties euh, horizontale ak partie verticale yu égal yëpp euh, kii donc quatre tiers euh, léegi parce que en fait boo ko diviser noonu dafa da nga am ay quatre points focaux donc point focaux yooyu dañu wax ne fa bët di njëkk teg bëtam it makes sense fa la bët di njëkk teg bëtam voilà parce que en fait bët mooy gis bët nañ koy wan ok baa ko affaire li nuy woowee donc cadrage ak composition alors yow mii di photo da ngay cadrer pour que pour wan nit pour wan nit dara léegi boo cadré ba pare dafa am li ñuy woowee nag léegi composition composition bi mooy nga teg ko de telle sorte que nag léegi bët bu ko gisee day gis li nga bëgg li nga ko bëgg wan wala li nga bëgg euh, wala message bi nga bëgg jàllale bu xoolee image bi après dina ko mën a liir facilement et loolu na ñuy wax ne nag léegi dafay neex bët noonu na ñuy jéem a présenter photo bi pour que bët bi bu ko gisee affaire yi neex ko parce dañu ne en fait bët lu mu miin dafay rafet ci moom da ngay jël affaire coucher de soleil ak lever de soleil neex na ñu bëri parce souvent paysage la boo xam ne spectacle la booy gis saa su ne euh, foo mënti nekk ci àdduna euh, asamaan si dafay euh, naaj bi dafay jóg di wàcc ba ci couleur yooyu noonu mélange u bleu ak orange c'est parce que bët daf koo yàgg tàmm gis mu yàgg koo neex nga jël léegi par exemple nga toujours encore si coucher de soleil wala lever de soleil en général dafay ànd ak horizon horizon bët buy gis euh, horizon en général dafay tàllaliku ñaret du euh, du def nii du def nii yow bañ nga ko ba yow si sa wàllu bopp bu ñu la wanee photo bu dëng sa premier réflexe mooy wengal sa bopp pour jéema a réajuster horizon bi wala bu fekkee dafa am benn ligne droite wala genre yooyu noonu moo tax booy photo souvent da nga war a bàyyi xel ci horizon beeg verticalité bi loolu noonu yëpp mbir la yoo xam ne da nga koy respecter à la base balaa dara di xew parce que bët ngay jéem a neex waa danga koy neexal wan ko lu ko neex donc da nga koy da nga koy neexal waaw da nga koy neexal bët la. selon encore toujours science science nee na euh, bët bu gisee par exemple portrait portrait mooy euh, lu ñuy wane lu ñuy wane nit walla mala léegi li bët di njëkk gis mooy bët bi nekk ci photo bi. loolu moo tax souvent ñu naan booy portrait booy photo euh, mala walla booy photo nit. Euh, da nga war a fexe ba bët bi net maanaam mise point bi focus bi il faut mu nekk ci bët bi focus bi focus bi mise au point bi netteté bi netteté loolu la ñuy woowee netteté netteté mi ñuy ànd ak comme par exemple profondeur de champ parce que bët buy xool paysage par exemple buy xool coucher de soleil mais léppay net du flou bët du faral gis lu flou bu bët floué da naan euh, dafa feebar dafa myope wala dafa kii il faut mu takk lunette pour que corriger nettetewu bët yi exemple bi gën a yomb ah jëlal sa baaraam nga teg ko sa kanamu bët mu am lu nekk sa kanam sa baaraam bu detee li ci kanam day flou bu fekkee ne léegi li ci kanam moo moo nekk sa baaraam day flou ay xam-xam la yoo xam ne ça date jamono yooyu noonu et dafa évoluer avec le temps ba gaa yëpp gis ko d'accord ci ba tey ba sànq donc moom la ñu utiliser loolu mujjee nekk ay règles ay règles de composition règles de cadrage mais li ci am solo mooy règles yooyu il faut que nga comprendre ko ba pare soo ko jéem a wiiri wala soo ko jéem a dëpp mais boo ko comprendre eh daanaka euh, lu la neex rek ngay def yaa ngi ci wàll yaa ngi ci bësum bouton bi ba tey ba sànq léegi boo liggantee sa cadrage ak sa composition ba ba lépp mët li ngay war a lijjanti mooy léegi photo bi est-ce que leerul torop wala lëndëmul torop donc leer torop boobu noonu wala lëndëm torop boobu na ñuy woowee exposition maanaam euh, exposition euh, exposition donc exposition bi dafa am ñetti mbir yoo koy régler réglage Euh, mooy mode manuel bi ñëpp di daw mode manuel bi ñëpp di daw te mode manuel bi vraiment du lu du lu compliqué du lu du lu diabolique du lu du yëfu extraterrestre vraiment quoi parce que tey affaire de lumière la c'est soit dafa lëndëm torop wala dafa leer torop dañu ne bu lëndëmee torop am mooy que amul lumière mooy que doo gis dara euh, bu leeree torop mooy que lumière bi dafa ëpp tamit doo gis dara donc ñaari valeurs yëpp ay extrémité la donc ci digg si ñaari extrémité yi entre leer na torop ak lëndëm na torop am na diggante bi diggante bi nag mooy exposition bu correct entre guillemets une photo bien exposée euh, appareil photo yi en général non yëpp sax yëpp am na benn trait bu ci nekk comme xeet biir yi boo xam ne euh, trait la bu ànd ak ay euh, ay plus deux moins deux wala plus trois moins trois ak benn un en fait loolu mooy mesure lumière bi moom la sa appareil di mesurer lumière bi pour xool est-ce que léegi photo bi c'est bien exposé léegi après bu exposé boo exposé correctement ba pare fa ngay soog a nag lijjantee lan ngay soppi walla lan ngay yokk pour jéem a régler sa problème et pour loolu dafa am ñetti mbir. Euh, ñu commencé ci ISO bon amul ordre mais ñu commencé ci ASO ISO euh, ISO. ay norme la ay norme normal yu nu lu nu normalisé euh, ñu dellu si ci euh, sunu bul yi donc jamono yi gars yi créé pellicule ba def ci ay bulu bromure d'argent bromure d'argent yooyu noonu euh, dafay réagir par rapport ak naaj bi selon est-ce que naaj bi da ciy dal bu baax walla da ciy dal tuuti donc dafay dafa doon def li ñuy woowee day lakk day day lakk lakk bi mooy que euh, day day lëndëm léegi lëndëm boobu noonu dafa am bu fekkee daf ci dal torop dafay euh, lëndëm yenn lëndëm yi euh, bu fekkee dalu ci torop dafay xaw a maasaloo tuuti donc lëndëm bu lëndëm torop maanaam lumière bi bu ci dalee ba mu bëri ba ba mu ëpp torop ah loolu moo tax ñuy wax cramé xëm dafa surexposé dafa xëm parce que lumière bi ci dal dafa bëri foofu la expression boobu jógee et donc puisque xamuñu woon ban mooy quantité bu baax bi fa la experts yi dajaloo tester ay euh, quantité de lumière et bi ñu ko tester dañu dem ba gis ne par exemple valeur 100 mooy valeur standard de base boo xam ne euh, bii nii boo ko boo ko defee ci sensibilité capteur bi bulu bromure d'argent yooyu noonu boo ko ci de boo ko yemalee sensibilité bi foofu noonu exposition bu cool ngay am et affaire yi du lakk torop ba mu xëm léegi bu fekkee dafa yokk plus valeur bi di yokk plus muy xëm et xëm bi mun nañ ko méngaleeg éventuellement li nuy woowee ay grain ay grain donc ouverture lan la euh, affaire bi amul sax amul sax trop rapport ak boîtier bi parce que boîtier bi euh, ouverture fermeture ci objectif bi la ci ci lens bi dafa am fuy tijjeeku di tëju trou bi ci biir dafay tijjeeku di tëju di bàyyi lumière bi muy dugg wala muy euh, di wàññi liy dugg ci lumière bi euh, et en général ñu ngi koy noté f un point quelque chose wala euh, numéro deux trois quatre wala un point deux machin chose c'est un peu côté inverse côté un peu kii da nga koy jéem a nattee ci nga nekk ci néeg bu lëndëm ah nga war a ibbi wala bunt bi rideau ñu wax rideau ah léegi rideau bi bu fekkee da nga tëj palanteer bi danga nga tëj rideau bi ba mu tëju lumière bi du dugg du dugg lu bëri donc loolu mën nañu wax ne tëju bi mi ngi à tëju maximum ok fermeture maximum léegi boo ibbiwee lu boo ibbiwee rideau bi plus ngay ibbi rideau bi plus lumière bi di dugg donc bu fekkee danga nga ko ibbi ba mu sës mën nañu wax ne yaa ngi fermeture yaa ngi tëj zéro tëj zéro tëj amul tëj hmm. léegi plus ngay tëj. plus lumière bi di wàññeeku donc boo tëjee ba ay f 19 wala f 22 ah bu boobaa nag lumière bi tuuti moo ciy am bu fekkee nag da nga tëj zéro ay bon am nga lan lens yoo xam ne da ngay tëj ba ay euh, un point dara un point quelque chose am na bon am na yu gën a graaw mais xaw ma loolu noonu donc mën nga ko mën nga ko méngalee pour bañ a réer parce que c'est un peu compliqué dafa xaw dëpp comme valeur parce que euh, plus nga am euh, f plus un point quelque chose bi euh, di tuuti plus ouverture bi di di nganda et euh, et plus f bi di kii affaire ouverture bi di tuuti léegi pour bañ réer da nga koy def ci da nga koy méngaleeg f slash quelque chose léegi f bi da nga koy méngaleeg fermeture fermeture donc fermeture zéro palanteer bi mooy que affaire bi ibbeeku na fermeture plus Euh, plus valeur fermeture bi di yokk mooy que moins de lumière di dugg mooy plus yaa ngi tëj rido bi jëm ko capter noonu xëy na mu jàll mais sinon il faut que nga gëstu ko teste benn par benn mën a xool déjà sa appareil li ma lay wax pour nga miin ko foog nga xam pour modifier valeur yooyu noonu fan la léegi bu lumière bi duggee ba dal ci capteur bi dafa am comme li ma doon expliquer mooy que lii nii dafay ibbeeku selon benn durée soit day gaaw wala mu yéex et c'est en terme de euh, fraction de seconde maanaam ay daggitu seconde euh, donc am nga ba ci dina dem ba trente secondes wala lu ko ëpp dina dem ba ay un sur quatre mille wala un sur huit mille seconde wala un sur euh, plus lu gën a euh, affaire bii nii donc mooy vitesse bi da ngay déterminer sa vitesse d'obturation obturateur obturateur bi benn kubé benn genre kubéer la dafay nekk ci buntu capteur bi léegi bu obturateur bi jóge wala waaw bu ibbeekoo euh, lumière bi dugg léegi dafay ubbeeku solo une certaine durée après mu tëju loolu nag loolu nag la capteur bi photosite yi nekk ci capteur bi information yooyu information yooyu noonu lay recueillir donc loolu la ñuy woowee triangle d'exposition et triangle d'exposition bi c'est que justement da ngay régler ISO bi euh, vitesse bi wala ouverture bi pour que nga balancer sa sa euh, exposition pour am exposition bi gën a correct possible léegi exposition bi gën a correct mooy euh, du lëndam torop du leer torop nga am ko ci digg bi pour que après léegi euh, boo demee nga mën a régler say problème parce que leneen li nga war a comprendre mooy que euh, lumière blanche lumière bu weex du lu weex weexul en fait ay lumières yu couleur yu bëri ñoo dajaloo pour former lumière bu weex et lumière boobu noonu bu weex boobu noonu dafa am bët li mu ciy gis dafa am ab as ab dagg bu ciy gis dagg boobu na ñuy woowee le spectre lumineux le spectre lumineux maanaam couleuru arc yi loolu la bët di gis loolu rek la bët di gis loolu et couleuru arc yi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp da dafa am ñetti couleur primaire yu ñu ne yooyu noonu boo leen jaxasee boo leen jaxasee ñoo lay jox restant couleur yëpp et ñetti couleur yooyu mooy lan RGB red green blue rouge vert bleu <laughs> wax naa ko ah rouge vert bleu RGB euh, RGB benn bi moo ci anglais beneen euh, RGB mooy anglais RVB mooy français euh, droppal français bi garaawul parce que à la base bët normal naturel lu nit dafa am ñetti bat ñetti bâtonnet dafa am euh, ay bâtonnet am ay ay ay cône ñoom ñetti couleur la ñuy encaissé muy RGB red green blue loolu mooy couleur de base yi nga xam ne bët moom lay jël après mu Euh, jaxase ko pour am yeneen couleur yi existé yi mu mën a gis yëpp hmm? et donc foofu la gars yi basé wu pour jël photosite yi def ko ci euh, format boobu nga xam ne léegi moom ñetti couleurs yooyu lay recevoir et léegi après lii xew mooy dafay enregistrer loolu noonu yëpp su format fichier maa ngi ko doon expliquer sànq format fichier format raw la koy enregistrer après mu jël ko euh, enregistrer la ko ci carte mémoire bi bon alors appareil photo mën na la enregistrer à la base daf lay enregistrer format RAW mais tamit daf lay enregistrer format JPEG mooy éventuellement format automatique bi format wu bëskatu bouton mais li nga war a comprendre mooy format JPEG format final la lu nu traité ba pare ba joxe ko et JPEG en fait bi ñu koy créer c'était parce que xeetu euh, appareil photo numérique yi commencé na bëri. et que ku ci nekk am nga sa format bopp et que support à à l'époque ordinateur yi informatique développé wul woon noonu et que il fallait ko ñu léegi jéem a xool benn format boo xam ne appareil yëpp non ordinateur yëpp wala support numérique yëpp dinoon ko mën a lire foofu la expert du monde yi dajaloo euh, créer gëstu ko ba créer li ñuy woowee format JPEG et format JPEG du lenn lu dul. joint expert photograph group euh, joint expert photograph group euh, JPEG mooy euh, le groupe des experts photographes réunis Casa la fañ tëb donc ñoom ñoo JPEG seen tour noonu ko jox point JPEG et loolu dafa nekk léegi format universel boo xam ne n'importe quel appareil mën na ko liir muy téléphone muy télé muy ordinateur lépp mën na ko liir léegi nag JPEG dafay jóge ci raw ci fichier raw bi mooy fichier de base bi euh, lu tax ngay am fichier raw parce que fichier raw en fait mooy li ñuy woowee digital négatif parce que alors ñu dellu si ci sunu bromure d'argent yi euh, pellicule boo fotowee ba pare ba exposer bromure d'argent yi négatif la lay jox et jamono jooju jamonoy pellicule en fait bu négatif bi génnee puisque photographie c'était pas développé erreur yooyu noonu yëpp appareil yi doon indi parce que jël benn photo c'était compliqué gars yi dañu développe woon ay technique pour nag léegi di corriger faute yi am ci photo bi maanaam nit ki dafa bouger wala fii leerul dafa lëndëm torop et cetera et cetera gars yi créé ay technique foofu la ay ñoom Dodge and Burn jógee am na ñeneen ñoo xam ne dañ doon am seen ay créon taille yu nekk modèle yu nekk et cetera nga xam ne léegi dañuy jël euh, dañuy jël photo bi yenn partie yi ñu tu ko ak crayon tu tu ko ba mu kii pour corriger yenn imperfection yi surtout côté lumière yeeg yooyu noonu traitement traitement wu démb ñoom dot jeune bën ak ay jël sa loxo di masquer lumière bi de temps en temps di pousse di kii yooyu noonu pour euh, changer exposition bi corriger yenn affaires yi ci photo bi loolu nanu numériser loolu noonu nañu numériser léegi sa fichier raw en fait da nga koy récupérer dugal ko ci euh, néeg bu lëndëm bi bi am solution chimique yeeg kicin kacang yi et à partir de là nag nga am sa benn image boo xam ne après mën nga ko lijjanti donc traitement boobu noonu ni ñuy woowee correction de couleur walla étalonnage léegi nag euh, coow li coow li mooy que capteur bi ak ay photos itam li ni li muy enregistré day am ay problème day am ay erreur day am ay kicin kacang comme bët rek bët léeg-léeg mu feebar et cetera parce que encore une fois ñu dellu ci bët nga koy wan et bët buy xool image day xàmmee couleur bu naturel donc da ngay def li ñuy woowee correction de couleur léegi nga soog a jël image bi jox ko look bu nga bëgg donc euh, outil yi gars yi doon utiliser jamonoy euh, argentique jamonoy euh, pellicule yooyu ñu moderniser def ko sous forme de logiciel et bi njëkk siiw bi gën a siw mooy Photoshop et ci biir Photoshop en fait dafa amoon euh, Lightroom et Lightroom bi waa ñi defar Photoshop bi ñu gisee ne que ne photographie vraiment ñi ngi utiliser Lightroom ci nu mu euh, nu mu gën a gënee euh, fa noonu ko détaché daf ko logiciel à part mais biir Photoshop am na toujours benn genre version Lightroom am mooy caméra raw e yooyu mooy les version payantes mais sinon am na ay euh, version gratuite yu yu bëri yoo xam ne ay logiciel la pour traité ay fichier raw comme yu ci mel na ay UF raw euh, ay euh, raw thérapie et cetera donc bu équivalent wu Photoshop gratuit c'est GIMP GIMP la c'est logiciel bu bu saf sàpp la bu saf sàpp donc give it a try vraiment saf na sàpp léegi fichier boobu noonu bu la neexee nga def ci loup nga changer ay affaire yokk ci ay affaire dindi ay kii loolu na ñuy woowee post production post production mooy que produire nga ba pare léegi yow nag lépp lu ci tegu yow yaa ko ci yokk loolu mooy post production donc un peu foofu la différence bi commencé féete entre photo simple ak image bu ñu créer parce que image bu ñu créer mooy rek nga bon nga cuuc capp xam rek nga photoshopiser donc éventuellement loolu ñuy woowee photoshopiser euh, image mais boo amee sa fichier final léegi am nga option wu génne ko enregistrer ko sous plusieurs formats am nga format JPEG normal national boo xam ne vraiment fépp ñëpp dinañ ko liir waaye dafa am li ñuy woowee format imprimerie format print loolu noonu. Euh, c'est par problème de résolution alors pour un peu la différence fii gp JPEG booy posté Instagram wala Facebook mi ngi nekk à 72 dpi 72 euh, 72 dpi disons maa ngi dellu si si si signification dpi euh, pour imprimerie fichier yi ñuy soxla c'est à minimum 300 dpi pour mu am qualité impression bi gën a gën beneen bi mooy bët bët 300 DPI lay gisee moom tamit. parce léegi lan mooy DPI ñu dellu si si sunu boule bromure d' argent ya ca pellicule ba tëm ay maa gëm argentique. donc pellicule bi ay boule bromure d' moo ci nekk yu ñuy aligné. nii fur ba mu bëri ba mu sakkan ay bul yu ndaw ndaw ndaw ba mu sakkan donc li ñuy woowee DPI mooy dot dot mooy point wala bul per inch dot par inch inch mooy unité de mesure millimètre centimètre machin chose mais euh, version anglaise per inch dot per inch DPI loolu mooy résolution wu photo résolution boobu noonu DPI moo des ba léegi ak numérique bi ak numérique bi on dit toujours DPI dot per inch léegi non seulement da nga am affaire résolution bi donc imprimerie je disais euh, lépp lu nu war a comme par exemple photo bu ngande bi ci panneau publicitaire u mbedd bi trois 300 DPI euh, bu dee euh, internet wala télévision wala ordinateur 72 euh, DPI doy na parce que ñoom ñëpp 72 DPI mooy seen qualité maximum et euh, lillahi wa rasul benn bi du pour photographie mais éventuellement pour les graphistes ak waa agence de communication yi parce que agence de communication yi dañuy jël ay fichiers JPEG de 72 DPI di ko jox graphiste yi ñu traité ko yàq pixel yi encore une fois ba pare war ko yóbbu imprimerie à 72 DPI attention gars yi da ngeen di vérifier waat qualité wu li ngeen di def boo boobu mooy léegi qualité imprimerie et vraiment boo bëggee sa photo ñu génne ko ci qualité bu baax a baax a baax da nga koy traité moytu grain yi moytu flou de mouvement yeeg moytu kicin kacang yeeg yooyu noonu yëpp et léegi da ngay enregistré am na ñuy enregistré formatif am na ñuy euh, am na ay format euh, PNG am na format SVG am na format yu nekk et lu ci nekk en fait da nga ko war a gëstu en tant que photographe parce que loolu mooy sa moo supposé nekk sa liggéey parce que tey dañ lay commandé photo ne la non livré ñu ko ñu fekk imprimer cadré tout et bu boobaa c'est à toi de te débrouiller boo ko joxee boo jëlee sa image tamit jox ko benn client jaay ko nit eh daanaka bu ko imprimer impression boo xam ne eh ben qualité bi dafa des loolu tamit yow la neexu sa xol parce que di nga liggéey liggéey bu bëre et que après nga ñëw toog gis liggéey bi ben résultat final bi euh, mooy loolu donc ci gàttal da nga war a comprendre ne photographie processus la yoon la donc da nga war a xalaat prise de vue bi mooy naka ngay photowee li ngay photo naka nga koy photowee point de vue angle de vue da nga war a xool say réglage est-ce que photo bi c'est bien exposé ou c'est sous-exposé wala surexposé euh, nga def say réglage ci triangle d'exposition bi et encore une fois benn rappel mooy que say réglage par rapport ak li nga bëgg photo triangle d'exposition boobu noonu ni nga koy manipuler loolu mooy désigner en général style photographique mooy xam ay macro ay portrait ay paysage ay kicin kacang photographie de de course ay course auto vitesse kicin kacang yooyu noonu yëpp say réglage en fait ñoo koy déterminer moo tax des fois da ngay gis ñoo xam ne dañuy opter pour benn option de réglage can foofu noonu parce que loolu mooy régler seen problème ñoom loolu lañ soxla et loolu balaa nga koy xam nag il faudrait que nga essayer yëpp yow si sa bopp d'abord ba comprendre ko d'abord comme li Cheikh Anta Diop di wax connaissance directe da nga war a jël dem vers la source directement par yow directement nga consulter que sa bopp directement li may wax ci vidéo bi yëpp c'est à vérifier à consulter maanaam dem leen ngeen gëstu ji da ngay fay internet bi tuuti fay sa téléphone tuuti taxal sa xel alors bon vidéo maa ngi koy fii parce que gudd na euh, léegi euh, j'espère que tënk na lépp ba nga léegi am ngeen benn idée général ci affaire photographie processus bi yëpp naka lay demee après dañu dugg un peu plus en profondeur ci traitement yeeg yenn réglage yeeg yenn affaire yooyu noonu bu ñu ko yàlla mayee wala ñu am jot bi ci kaw loolu nag gars yi comme d'habitude salaam jàmm paix peace oh, oh. RGB rouge <laughs> RVB RVB mooy français bi euh, wuyaa yooyu euh, rouge vert bleu RG <laughs> yow bon sama gars yi xam nga problème bi yëpp la laa ah? bu dee technologie la nañ jàpp ci anglais bi français amul technologie quoi xam nga inventé wul dara donc du coup nañ jàpp ci anglais bi donc RGB euh, red green blue rouge bleu vert oh oh rouge oh <laughs> oh bon RGB bon RGB amul problème euh, RGB euh,